donc ci mom lay jógee plus particulièrement bi nga xamante dañu nek ci campagne électorale sénégalais yi soxla discours bo xamante discours bu apaisant lay dons, bu apaisant lay donne donne ben discours bo xamante da fay discours bu convaincant pour que nit ñi a am yéene dénkaat li nga xamante moy mooy ndaw ndawu mi mais so démé tay ba pouvoir judiciaire nga koy traité d'autre pouvoir judiciaire manam pouvoir lii la autorité politique la donc je crois que sénégalais yi war nañu am ñakaré ak titangé jëmale yow ci ëlëk bi nga jëm ndaxte tay yow en tant que premier ministre yow ya taxaw di menacer le président de la république à plus trois raison raison nak bi nga xamantene yow ya am autorité nga ne ci autorité euh, politique bi di ministre de la justice alors que ëllëg nga demandé ñu jox la li di assemblée nationale yan loi nga fay def est-ce que doo fa def loi bo xamantene da fay défier le président de la République on ne sait jamais donc je crois que les Sénégalais doivent prendre leur mal en patience xamne ki ñu ñu lol ni yalla mo leen ko won digu bëccëg ndar kam par rapport à ces discours amul cohérence par rapport à ces discours amul ken ko xamantene ni mën na la convaincre lu révélation lu accusation bo xamantene amul benn preuve bo xamantene durant trois semaines de campagne bi yëkkati na ko ci benn kàddu bu mu wax mu dellu siwaat ci mu ne preuve baa ngi nii lépp lu mu wax da koy romb dem yoonam fàtte na ko donc je crois que muy réaction le panafricanisme donc dellu siwaat na xamal ni que daal tey lii mu def ni mooy premier premier ministre dans l'histoire boo xamante ni moom la ñu dégg mu def ko alors que je crois que ça gàcce la doon tey jii ci li nga xamante ni mooy Sénégal bi nga xamante ni dañ ko tabax ci ay fondement yoo xamante ni fondement démocratique la donc ñoo ko déggandoo suñu jógee foofu dañuy dem seeti ci beneen débat interposé bo xamanteni Yari ñaari National la muy nationaliste bi di Tahirou Sar ak ki nga xamanteni moy leader du parti Pastef ñom ñaar ñu ensemble Bokondo ensemble seen projet do won ci biir Pastef xéxando mu jappalé ko taxawu ko dem ci assemblée nationale Tahirou def listeum jëmale ko ci nationaliste mom ci ci leader du parti Pastef hésité wul benn yoon daal di attaqué ki nga xamanteni frère la allié la ñom ñoo bokkon ben combat daal di dal ci ko mais ci biir dal bobu Tahirou dafa ñew daal di koy wéddi ba mu sa démentir ko tay nag su doon Barthélémy Diaz moo ko weddi mën nañu wax tay su doon Bougane moko ko weddi mën nañu wax mais principal ki ko weddi tey xamal nañu ko mom limuy wax du deug waxam yëpp du deug kon donc dañuy fekki ji Bougane ngay dañi ak Barthélémy Diaz bi nga xamanteni tay moko wutal ben surnom dal di ko koy tuddé nañu déglu ji réaction Tahirou Sar dellu si waat. yow ba ci souf té loolu la waxaat tay képp ku ne projet Pastef carte de séjour mi ci comme lu ko Ousmane Sonko waxé dem day fan commencé ko ci mom day fan man maa ko wax kaw ba ci suuf te loolu laa waxaat tey képp ku ne projet Pastef carte de séjour mi ngi ci comme lu ko Ousmane Sonko waxee démb day fan commencé ko ci moom day kaw ba ci suuf te loolu laa waxaat tey képp ku ne projet Pastef carte de séjour mi ngi ci comme lu ko Ousmane Sonko waxee démb day fan commencé ko ci moom day fan man maa ko wax Ousmane Sonko sama mag la ta batay sama mag la mais dafa am luma gëm mag su fenalé rak rak warna na mën a expliquer surtout su ko défé en public ta daf ma fenal lo xamné dina ko détailler ben par ben bu suñu jëk moy doxalinam ci ñak nek homme d'état moy defante bu bëri ta défanté bu bëri baxul te li ko Macky Sall ñëk xagn moy passeport passeport boobu ñu ko xañ da koo teel a xañ moo tax tukkiwul xamul nu àdduna du doxee wallahi waxuma ko pour nag ñàkk respect wala dara mais Ousmane Sonko xamul fu àdduna toll xamul nu àdduna du doxee benn Macky Sall da ko tënk ci maanaam defante ba nga xam ne dafa dem ba jël pouvoir bi di kon di defante mu dem tamit ci ñàkk passeport mu juróo ko nam ñàkk relation internationale moo tax soo leen xoolee Sénégal mi ngi dund mel ni économie bu faible bu négative Parce que si nous gouvernons, nous avons relation internationale, Je suis en train de vous parler de l'Europe parti parce bi attaqué projet la dañu wara am carte de séjour comme ni ko Sénégal di Gabon di ko fayé yeneen réew aussi dañu wara imposer ñen ñi nga xam étranger la xam fa la duggé fa la mu doon aussi lu bax la mom leaderu parti dafa taxaw ci campagne am xamal ni que mom lolu dafa ci projet té pour la première fois ñukoy dégg mu koy dal di wax na mbirum carte de séjour bokk na ci sen solution bokk na projet bokk na référentiel 2050 sar nak bi nga ak muy wax du dëgg moom ci boppam xam na li muy wax day kàcc ay wax la yoo xamante yu safaanoog dëgg ndaxte amul fenn foo xamante ni na ko génneel ci projet am ngi ci biir Tahirou Sarr a jiite di ko li nga xamante ni dafa safaanoog dëgg dara du ci rs dara deuxième bi lim ko tegal maanaam mooy magam la Wayne nak mak su waxee lu dul dëgg su kàccee rakk ji day ñëw ne ko mag da ngay kàcc lenn moo ko ko teg nag maanaam mooy ñàkk xam adunam ñàkk xam adunam lenn moo ko ko teg mooy Macky Sall parce que daf ko xañ passeport te passeport ku la ko xañ maanaam tukkiwu demoo fenn xamoo nu aduna di doxee xamoo nu aduna tëddee donc loolu aussi day doon benn fay boo xamante ni handicap la ci moom donc mooy wane parfois benn énervement bi mu waree xam aduna xamul aduna ba ca topp mooy dafa ñàkk li nga xamante ni maanaam relation carnet d'adresse international moo tax Sénégal nekk ci benn taux bu faible jëmale ci économie ndaxte amul kenn ku mu mën négocier ba indi Sénégal ñaari salaamaaleykum parce que loolu yëpp xamu ci dara réew nag pour nga xam ko foog nga tukki xam réew naka la mel xam réew naka lay doxe def comparaison ci àdduna wërngal këpp yi nga xam dañu développe mais ci télé yi lay nekk di seetaan di wax suba ngoon ba bëccëg je crois que magum jëmm tay mënoo bëgg majorité assemblée nationale alors que yow si biir campagne bi li ngay wax yëpp nee nañu li ngay wax dara du ci dëgg da ngay kàcc donc kàcc yooyu nga xamante ni découvrir nañ ko ba xam nañ ko da nga leen nax en 2024 est ce que tey da nga ñëw ba continuer kàcc yooyu pour teg ko ci bopp sénégalais tey nag ki ko wax du kenn ku dul Tahirou Sarr parce que jël na ampleur jël na benn proportion li nga xamante ne mooy ndaw yi jeunesse bi nga xamante ni yaakaaroon na ko ci moom gis nañu ndaw yu bëri léegi jamono ji Tahirou sar la ñu topp donc loolu doon na benn haine doon na benn vengeance ñàkk homme d'état boobu nag maanaam dafa mujj doon homme de détail maanaam day defante te alors que gis nañu ci campagne bi ci defante la nekk te defante bobu kan moko ci duggal muy piège bo xamante Macky Sall moko ci duggal muy ak Macky Sall di ak Macky Sall ba tay ji Macky Sall mosu tontu lenn la ko Macky Sall faye génné ko ci kasso bi bayiko mu nekk euh, premier ministre ba nopi mu dem yoonam bayiko fi mu am tay mu nekk en tant que premier ministre faté ne que tey jii moom nekkatul opposition motax barki dembu mu kenn di détailler bay détailler ki nga xamante moy mooy ministre de la justice ak ki di ministre de l'intérieur dem ba ci rax ki nga xamante moy le président de la république son excellence Bassirou Diomaye Faye donc du samay cadre cadre tayru Sall donc sénégalais ñom ñoo war ubbi seen bët xam na que diw mi taxaw di wax depuis 3 semaines mi ngi wër amul benn phrase bu ma benn sénégalais mën a génnal ne ma Pastef lii la ñu wax ci campagne bi lii kat am na njëriñ lii kat am na avancement lii kat am na développement lii mën nañ ko teg amul kenn ku ma ko mën a génneel.

mu leen mënta dégg gisuñu donc ñoom dañuy toog ci fenam mais nag tey dafa am benn majorité silencieuse boo xamante ni ñu ngi toog ci seen coin alors que tey avenir au Sénégal pour les cinq ans à venir je crois que mi ngi reposé wu ci seen loxo reposé wu ci seen doole seen doole mooy lan carte électeur donc ñoom ñooy xool naka la ñuy def suba le 17 novembre ndax dañuy bëgg la continuité de ce qui existe ici ou bien dañuy bëgg ben équilibre jëmale ko ci li nga xamante ni moo fi jot nekk équilibre nag lépp lu mu amul jàppal ni ko baaxul balance sax pour mu normal foog ñoom ñaar ñu tolloo mais su amee benn bopp sa morom xamal ni ko ki ëpp sabara maanaam d'or na donc pour éviter cela je crois que le choix se fera demain inchallah sénégalais yi dinañ ko déterminer bu baax a ci biir loolu nag ex allié boo mais il mi ngi mouvement des forces démocratiques